mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme Thiès info point com dal leen ak jàmm ci xibaar yi dañu koy door rek ñàkkum ndox bi wéy di lëmbe askan wi dëkkee fii ci diwaanu Mbour euh, ñoom askan wi fi nekk nag jamono yi daanaka ay ayu bës a ngi nii amuñu benn ndox boo xam ne rek euh, mun nañ koy jëfandikoo ci jamono joo xam ne rek lii di euh, feebaru coronavirus mu ngi woy di lëmbe askanu suñu gaal loolu dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ñu wax ci leneen ak les amis de Siré ñoom it ñu am ndimbalu takku loo xam ne rek daal dinañ koy jagleel askanu Thiès lii nag fekk si euh, ki nga xam ne moo di DG Siré Dia euh, ci euh, social bu am solo bi nga xam ne rek mu ngi koy wéy di ko defal askanu Thiès loolu dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi leneen ak maire bu Tassette Mamadou Thiaw daal di jagleel nag pencum Thiès ak ndimbal lu ama am solo loo xam ne rek dafa jëm ci ceeb ak xeet yu ni mel ngir jàppale leen ci li nga xam ne rek moo di feebaru coronavirus ak li nga xam ne jamono ji daal di nay tagga ñu jeexalee xibaar ak association bi nga xam ne rek moo ëmb tey tailleur yi fii ci diwaanu Thiès ñoom it naka noonu daal di nañuy soob nag seen loxo ci euh, dimbale euh, ci wàllu masque jagleel ko nag xeex bi ñuy xeex wàllu coronavirus mu jëm ci prévention mbokk yi internet yi ñuy àddoo fii ci diwaanu Mbour 1 ci kàddu gi Ahmadou Ly fegoog Adama Ndiaye ci wàllu xarale gi nes ñu dikk ak yéen ci faram fàcc gi mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme Thiès info point comme ni ñu ko waxee ci ponk xibaar yi euh, fii ci diwaanu Mbour nag di àddoo jamono ji xam ngeen nag askan wi fi nekk daanaka ab euh, ay bés a ngi nii amuñu benn yoon ndox tax nag ñu nekk nag ci njàqare ci jamono goo xam ne daal li nga xam ne moo di état d'urgence daal dinañ koy décréter euh, teyit bokk na ci loo xam ne gàllankoor na seenu nekkin ak seenu dundin fii ci diwaanu Mbour ndax li nga xam ne moo di euh, ndox mi daal daanaka ay euh, jamono ngi nii daanaka sax mun nañu wax ne ay bës a ngi nii amuñu euh, ndox benn yoon boo xam ne rek dinañ ko mun a jëfandikoo ci jamono joo xam ne fii ci diwaanu Mbour li nga xam ne moo di état d'urgence daal dinay dal seen kaw comme ni mu dalee ci ñeneen ñu wax ci leneen ba tey ci biir xibaar yi ak ñi ñu tuddee les amis de Siré Dia ñoom it daal dinañuy sóob seen loxo ci ndimbale askan wi ci feebaru coronavirus bi nga xam rek moom itam mu ngi wéy di lëmbee askanu suñu réew euh, tax ñoom ñu daal di jëkkati euh, ay euh, ndàmpaay jëm sax ci loo xam ne rek askan wi dinañ ko mën a jëfandikoo ci aide alimentaire ay saabook yu ni mel ngir jàppale ko askan wi seeni kàddu aadama Ndiaye moo ko taataa ñu teewlu ko. tey dañoo ñëwoon seet si suñu kilifa le PCA de la LONASE ñu ñëwoon def benn initiative boo xam ne doomi doomi kilifa gi ñoo xam ne njabootu Pape Siré Dia lañu PCA de ñoo def initiative bi ñu fekk euh, tey jii feebar bi am si dëkk bi di lëmbi àdduna ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom bi ba sunu borom bi teggil ñu ko ñoom ñu am si initiative bu rafet ku xam Pape Siré Dia PCA si loo ko xamee mooy si social yàgg na dox social yàgg na def social fan yi passé la la def si social dem yóbbu ko hôpital ak si daara yi ñun doomi ñoom ñun njabootam mu tàggat ñu si social ñu ne dañ ko siy jàppale ànd seeg moom ba keroog feebar bi di jeex mooy coronavirus bi am si àdduna bi parce que dañoo gis Siré Dia di def social di jàppale jaam jaam jaamu yàlla yi mais ñun doomi kees duñ ko seetaan ci lii ñu ànd ak moom teg ko ci loxoom mu boole ñoog ku ñu naan Samba njaay boole ñoog Gosaar boole ñoog Modou Fall tey ñu ñëw fii. di ko wax ne ndaw yi nga xamante ni Macky Sall da ko fee tegoon pour ndawu Thiès ndaw yi nga xamante ni moom la jàppale jox leen ay emploi mu nekk ci këru diine yi nekk ci këru dàq yi ñu ngi koy jàppale bu baax a baax ndaw yooyu nag ñoo jël seen mën-mën. xeet nañ ko nag di ko ko jàppale pour mu jàppale ko président Macky Sall ci feebar bi nga xamante ni moo lëmbe dëkk yi ñëpp di ko jooy ñi nga xamante ni sax ànduñu président Macky Sall ñu ngi koy jàppale ci affaire rawatina PCA de la LONASE bi nga xam ne ñooy Pape Siré Dia ñeneen ñu tuddee leen ay faux policiers muy ay Samba Boy yu fële ca Cité Lamine daal di fay nag amal ay ñaawteef yoo xam ne daal ci jamonoy état d'urgence lañu ko amalee foofee ca diwaanu Cité Lamine Samba Boy nag daal di nañuy dal ci benn boutique boo xam na ne daal euh, soow lay jaay ñu duddee ko yëngal euh, foofe nag euh, mbir mi fa la xewee fële ca Cité Lamine nogoy moo ñu fa demaloon ñu teewlu seen i kàddu. dem si guddi ay vingt heures gars yi dañu ñëw ma en ce moment là dama doon nelaw damay nelaw nag maa ngi dégg booy di waaj di koy saaga di koy saaga mu jigi ma tiit sa ay nelaw ba ma jógee génn ma dégg mu xëcc mu xëcc ko danaa ko génn dama la yóbbu si agent ba ban agent la wax nag exactement ma dégg ma naa ko yóbbu. man te ma génn ba bay jëm solo mu mbubb sax ma génn ñoo taxaw fii ndax lan la mu ne ni ngeen def bu heure bi jotee doo leen dugg mu seen kër yi waaye dama ne yóbbu si agent léegi man te ma na ko non pardon sa waay ñu ngi doon tëj bunt mais na ko génnal léegi à ce nag moom dafa dugg si biir ba mu duggee si biir maa ngi ngi mi ngi mi ngi xool si pegg yi pour pour lu mën a yóbbu pour lu mën a jël léegi man tamit euh, mais ba ma génn exactement damaa gis sa waay moom def na benn panique ndax dafa yaakaar ne man damay ñëw pour def pour dal seen kaw mais ba ma gisee ma dugg euh, automatiquement moom am na benn recul bu mu def dafa dafa si yàgg rek mu taxaw ndax ne ko acca nañ dem garaaw nañ nañ dem léegi waaye tamit beneen waaye bi dugg si biir ne ko non non duñ dem commencé tamit saaga ma man tamit ba ma saaga man tamit ba ma tamit ma jël panique en ah, sama maam mënti mën a ko noob léegi faa ñu def mu naan ma ko léegi dañuy bàyyi ma ci sama daal mu dañ leen génne ñu yóbbu leen ñoom automatiquement boo leen xool da xam ne ñu du ay policier ah, la wala yëre benn barge boo xamante ni ñi moo war a ñoom ñoom dañu leen ay policier leen mais man lu ma xamal ah, ñii du ay policier ma gis waa ji ni muy saaga ndax policier wax dëgg yàlla bu fekkee dafay ñëw pour si nit war koy saaga mais li mu insulté moo bari trop sag chaque moment buy wax sag moment bu chaque moment bu mu wax rek dégg-dégg ma insulté. du Thiaw maire bu Tasset daal nay euh, jagleel pencum euh, dooleel euh, Thiès ndimbal lu ama am solo jëm ci ceeb diwlin ak xeet yu ni mel ngir jàppale leen ci feebaru coronavirus ci jamono joo xam ne daal fi mu ne nii lépp daal di tàggatémbe seen i kaddu Adama Ndiaye lañ ko dénk ñu teewlu ko. Mamadou Thiaw day sunu rak di sunu doom baay di gone gu baax bu bi ñu demee dëkkam keroog. ni ma gis muy jëflanteeg jigéen ñi ci wàllu koom-koom ni ma gis muy jëflanteeg ndaw ñi ci wàllu koom-koom boobu exemple laa bëgg ñu bari xam ko lan moo tax parce que looloo am solo kon bu ñëwee tey jox nu lii nga xam ne xeebuwut nit ñi ñëw toog di ko di di di ko bokk ak ñun. wax dëgg yàlla mënuñu lu dul gërëm du Thiaw moomu di suñu rakk. parce que Mamadou Thiaw meeru taseet la. mais ñun Thiès lañ dëkk mais moom ku la jox ndékki su la nee di nga añ nga gëm ko rencontre bi ñu defoon ak moom mu firndeel nii moom homme de parole la homme du am dignité am personnalité vraiment confirmé na ko tey parce que ñëw na tey jii ñu xëy xëy mu woo ñu indil ñu ay bagage di xeex Covid 19 parce que ku la indi lii mu def nii acte bu noble la. Thiaw ñu ngi lay sant bu baax a baax te di la gërëm di la ñaanal nga yàgg ko taxawee. di la gën a xamal ni laat waa Pencoo dooleel Thiès ñu ngi ci sa ginnaaw. xolam yaatu na jëfum yaatu na kon damaa jàpp ni ku ñu yëkkati lii teg ko sa loxo nga ni dugg sama néeg dama koy teg séddale ko mbokk ñi ma dëkkal séddale ko ñi nga xam ñoom laa bokkal liggéey bi kooku yaakaar naa bu leen dikkee di nga ko ànd ak ñan ko war a àndal. association bi ëmb tailleur yi fii ci diwaanu Thiès ñoom it euh, daal di nañuy sóob seen loxo itam ci euh, xeex feebaru coronavirus ci ay masques yoo xam ne euh, dañu ko daal di ñaw ngir jagleel ko askanu cees ngir daal ñu mun a fàggandiku. ci li nga xam ne rek moo di xeex feebaru coronavirus ñu teewlu seen i kàddu. ñun nag ñu ngi ci turu amicale des tailleurs et des coiffeuses fi centre la boo xamante ni dañ doon jël pour jàppale ñi nga xamante ni nii doole yi nekk ci koñ bi nga xam te amuñu ay formation machine yi ngeen gis daanaka amical bi moo ko fi def membre amical yi kenn ku ne mu cotisé ci xaalisam pour ñu jënd ay matériel kenn fekkuñu ci kon tey suñu demee ba jëkk premier pas bi pandémie bi démarré def nañ acte dem ci maire bi yóbbu ay don parce que euh, comme acteur affaire citoyen la ñu def comme citoyen yëpp mais ba problème daal di tàmbalee am ndax mënutoo fayati enseignant élèves yi fayatuñu daanaka liggéey bi taxaw na wax dëgg yàlla ñuy lancer appel président Macky Sall euh, son excellence di ko wax ni ah ñun de wax dëgg yàlla suñu soñoon feebaru yu jóge fii mais nag feebar di mujj indaat beneen feebar. waaw dem nañ sax bay organiser pour bëgg wut ay max yoo xam dañuy bëgg état bàyyi ñu xel subventionné ñu ci ba nga xamante ni duñ ci mën a sax au moins gérer yenn acti activités yi ci kër yi. daanaka mënut a régler lépp mais mun na wàññi quand même yenn problème yi quoi. mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg seen programme Thiès Info lii la moo fi tukkee woon ci xibaar ki leen ko doon faram-fàccee di seen mbokk Ahmadou ma feggoon ak Adama Ndiaye ci wàllu xarale gi cant ak ngërëm ñeen leen jox leen rendez-vous beneen yoon jërë ngeen jëf.